gis nga bii bëri ki démb rek waaw ah, moo si kii 7777 gis nga ko. Mhm. kii rek mën naa ci duy cartable ba mu fees xaalis cartable ba mu fees xaalis mën naa ko ci duy mais turu raawaan bi la muy àndal moo bari. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna ñu ngi dellu encore une fois di nuyu waa ñëpp. di leen ziar bu baax a baax di kontaan ci yéen lu bëree bëree bëri di leen remercier bu baax di rafetlu aussi ni ngeen di apprécier analyse yi nga xam ne ñu ngi koy def gis nañ appel yi gis nañ message yi ci whatsapp bi et tout ñu ngi kontaan yéen bu baax a baax a baax di dellu encore une fois di leen wax que ni analyse yi ñuy def sunu point de vue personnel la. li nga xam te ne si moom la ñu xalaat loolu la ñuy jël di ko partage ak yéen di ci waxtaan di weccoo xalaat. alors tey dañuy rester toujours ci seen série bi ñuy wax maîtresse d'un noom marié di profité aussi di leen wax que ni d'ici demain incha allah dina am benn vidéo bu am solo bu ñu leen mu doon loo xam te ni sunu benn sœur moo ko dund mu nettali ñu ko def ko ojo yónnee ñu ko ndax moom nee na dafa gis. li mu dund ak li rakk di dund ci biir série bi dafa xaw a nduroo moo tax mu amoon yéene partager histoire am ak ñun alors video boobu incha allah ci kàttanu sunu borom suba dinañ ko dugal yéen ñëpp di ngeen ci jot donc bala ñuy commencer analyse bi ñu leen indil tey ñu ngi leen di rappeler encore que numéro bii ngeen di gis mooy sunu numéro service commercial képp ko am loo bëgg a publicité wala loo bëgg a jàllale ci YouTube bi moo xam da ngay jaay. ak yaa xam lépp looy jaay bëgg nit ñi gis ko incha allah boo ñu contacter dinañ waxtaan ak yow wax la nan lay demee ci kàttanu suñu borom. donc toujours waa Lu Xew TV ñoo ñëw di leen defal analyse ci seen série maîtresse d'un homme marié tey bi ñu seetaanee épisode di bi ba pare dafa am quelque point yu ñu ci noté bëggoon ko partager ak yéen bi ci njëkk mooy toujours ci kaaw Racky parce que gis nañ ni à un jël na benn décision pour partager histoire am gis nañ ko mu def benn post mu bind mais liñ jot a gis ci post bi donte moom waxul lépp ni mu demee mais dañ gis ni que ni baayam bi ko jur ci boppam moom moo ko sàkk moom moo yekk ci kawam d'après di post bi joxe te loolu mu doon loo xam te ni bëri na ci dëkk bi yéen ñi nga xam te ni yéenay déglu video bi ku ko ci musul gis tamit kum dal mus nga dégg kum dal man mii di wax ak yéen personnellement. gis naa koo xam te ne si dal na ko ñu bokk benn koñ koo xam ne baayam bi ko jur moo ko doon sàkku da doon jël di ko yóbbu beneen dëkk di ko sàkku ba jour bi baayam waree génn Sénégal ci lañ ko jàpp parce que copain bi nga xam ni moo doon génn xale bu jigéen boobu noonu moo def ay enquête ba xale bu jigéen bi expliqué ko copain bi ci boppam moom moo boole bàyyi xale bi jour bi ñuy jàpp paa bi ñu ngi ko jàpp aéroport doon waaj génn dëkk bi te ba léegi mu ngi ci prison bi bëri na ñeneen ñoom dal mais imagine leen boobu animosité naka ngay jure sa doom ba pare tourné waat di ko xemmem ba yegg ci kaw am na nag ñoo xam te ne ñu ngi naan yenn yi feebar la dëgg la nangu nañ ko mais yu ci bëri tamit topp sa bakkan la parce que xanaa ku am doom war ko mën a seexlu waxuma laa di ko xool yenn bëti bay dem di yegg ci kawam tey yegg boobu nga yegg ci koom bu ci jëlee ëmb ana doom boobu di juddu moom nan lay dunde moom ëllëg même bu dul doomam boobu di juddu sa doom bu jigéen bi nga saako sax moom ëllëg nan lay génne ci dëkk bi nan lay dunde nga yàq àddunaam yàqaale sa bos yàqaale bu seen waa kër parce que tey li naan ay lu yem ci boppu borom boo defee dara sa famille yépp ngay taxal parce que képp ku bokk sa famille bu génnee bu ñu koy joxoñ dañ naan soit magu diw la wala raqu diw la wala tante diw la kon ñëpp ngay tilimal seen der dëgg la sax feebar day am parce que man yenn yi jàpp naa ni nit ku wér dëgg-dëgg du ko def parce que ku mën a xool sa doom boo jur nga dem ba àgg ci kawam bu ñu xoolee ba ca biir tamit am na lu des ci yow mais lu ci bëri tamit topp seen bakkan daf leen nit pousser ñuy def yenn yi parce que cas bi ma leen di nii ki ko def. pourtant moom mi ngi sëy ak yaay xale bi ba léegi imagine leen nga am soxna am ak moom doom soxna si toujours mi ngi ci kër gi ba pare ngay jël sa doom di ko yóbbu beneen dëkk pour di tëdd ak moom xool leen doo jooju jëf tey xale boobu noonu moom après na lay dundee ci biir société bi ëllëg bu amee ay doom doomam yooyu noonu nan la ñuy dundee ci biir société bi parce que fu ñu génn mën nañ leen a joxoñ ni leen tey seen maam moo defoon seen yaay lii donc dañuy profité ci loolu duggaale ji beneen séquence bu ñu gis ci série bi muy mami secretaire bi fi muy fàttali ko bi mu nekkee xale doon fo ak ay moromam donc gis ngeen bi naan ko mënoo dara génnal fii wala genre yooyu noonu d'habitude ay xale bu ñuy fo dañuy waxalante yéen nii imagine leen tey nga sàkku sa doom mu jële ci doom doomam boobu génn di foy te xale xamul dara mën nañ fa dem di foy ba dégg fa loo xam te ne dina naqari parce que xale yi moom parfois bu ñu nekkee di fo mën na dem ba toll fenn fii lu ne la ñuy waxante imagine leen tey jii xale boobu ëllëg nan la war a mën a dunde ak ay moromam day metti kon vraiment phénomène boobu dañ ko war a xeex ba mu denc biir dëkk bi parce que tey ki ko def du yàq àddunaam moom kese de day yàqaale àdduna yu bëri parce que non seulement doomam bi mu yegg ci kawam dina yàq àddunaam doomam boobu ay doomam bu ñu juddoo également cool yi mën na leen a topp loolu la ñaan ay du yem ci bopp boroom alors phénomène boobu moom dañ ko war a xeex ba mu deñ complètement ci société bi bu jógee ci boobu ñi ngi jàllaat ci beneen point bii nag ça concerne biiram parce que dañ gis ni muy doxale ci biir entreprise bi et tey jii nii ñaata nit ñoo fi daaneel seen entreprise su famille parce que lan dañuy wax que ni entreprise bi sunu famille ñoo ko moom lu ma neex laay def tey ñun Sénégal dañu am benn habitude boo xam te ne dañ koy dundaale pour ñun suñuy waajur bu ñu riche rek kon ñun dara tëwtuñ ci àdduna lu ñu neex def lu ñu neex wax tey fii ñaata ministre ñaata deputé maanaam ñaata nit la fi seen famille am xaalis nga gis leen ñu naan soit ñoo sàcc lii wala ñoo jël lii seen alalu waajur yi tey fii da ngay toog dégg journal doomu ministre bi sàcc na nangami million wala doomu ministre bi moo demoon bërëb sàngam moo fa def lii wala doomu ministre bi moo jël taara de million jënd ko ci oto bi du ñëpp nag parce que am na ñoo xam te ne seen waajur am na lu dul jeex macha allah te sax doo ko gis ci ñoom parce que doxewuñ ko wanewuñ ko mais la plupart ku seen waajur yi am benn kër ak benn oto nga gis leen ñu commencé du doxee nu leen neex ci biir dëkk bi di def lu leen neex te dañuy nekk ci benn entreprise familiale def lu leen neex ba entreprise bi daanu après ñuy door a regretter wala après ñuy door a xam ne ñoom kat li ñu doon def nii fii la la mënoon indi donc képp koo xam ni seen waa kër sunu borom dénk na leen alal tey alal boobu bu mu tax nga bew bu mu tax nga mel noo warul mel. parce que borom bi day dénkaane kese mën na xëy xëy xëy nangu loolu ngeen amoon lépp mën na xëy loolu mu leen dénkoon lépp mu nangu ko te su boobaa dootoo xam noo dundee ci biir nit ñi alors alal loo ko bërile bërile bu mu tax nga bew bu mu tax nga mel noo warul mel parce que li ñuy faral di wax rek dund bu sotteegul lu ne xaj na ci li la borom bi dénk mën na xëy un jour mu nanguwaat ko donc la modestie nit dafa war a modeste simple. loo am boo ci mënee def lu baax boo amee ñoo mën a dimbali ñi nga xam ni si seen loxo jotul seen diggu ginnaaw comme ni ñu koy waxee am na fi ñoo xam ne ne bu ñu ndékkee duñ añ bu añee duñu reer alal bi la yàlla dénk jéemal xool ñoo ko partagé ak ñoom nga jéem a xool noo ci dimbalee doomu aadama yi mais jël ko di ci caaxaan di ci fo di def lu la neex loolu lu jara moytu la di profité également di lancer message ñi nga xam te ne sunu boroom dénk na leen alal ngeen nga alal boobu noonu jéem leen koo def ci lu baax parce que bu leen ko deful ci lu baax ba ëllëg ngeen jóge fi seenu njaboot ñooy ñëw ñaar moo ci am njaboot gi mën nañ koo jël di ko def ci lu baax mën nañ koo jël di ko def ci lu bon te yow xamoo ban la ciy doon donc bi ngay dund nga jël ko def ko ci lu baax nga xam ne ni ëllëg boo demee ci kanamu borom bi bu la laajee sa alal bi kat ndax dërëm bu ne di leen laaj foo ko dugal bu la laajee tey jii sa alal foo ko dugaloon di nga mën a tontu mën a xam ni man kat sama alal ci lu neex suñu borom laa ko dugaloon mais soo ko jëlee di ko pasar pasaree di ko def ci lu neexul yàlla bu ëllëgee di nga ko lay ak sa borom. donc tey point yooyu lañ indi woon pour débattre ci ak yéen di leen waxaat aussi que képp koo xam ne am na ci xalaat mën na ko def ci commentaire yi. di dellu encore une fois di tuubaat di jéggalu bu baax wax ji ñu fi wax nag képp ko mu laal ñu ngi lay jéggalu bu baax. lépp lu jub rek ngeen xam ni ndimbalu sunu boroom la mais lépp loo xam te ne dëng la ci man mii di wax la parce que doomu aadama matul di tuubaat di jégaluwaat encore une fois di leen jox di daje ci beneen analyse merci à tout le gis nga bii bëri ci démb rek ah moo si kii 7777 gis nga ko. Hmm. kii rek mën naa ci duy cartable bu mu fees xaalis cartable bu mu fees xaalis mën naa ko ci duy. sëñ bi mais turu rawaan bi la muy àndal moo bari